salaam salaam salaam salaam gars yi nuyu naa ñëpp nuyu naa ñëpp live bu ndaw rek ah siyaare naa leen te leen kontaane te hmm, leen di jaajëfal di nuyu followers yëpp ah si Sénégal ba ñi nekk ci jaspora nga xam ne fu Kaliphone Sall di live dañuy ñëw bàyyi xel ah. donc maa ngi leen di siyaar te leen di kontaane te hmm, leen di ñaanal jàmm te di sàkku si yéen it ngeen ñu ñaanal jàmm ñu ñaanal réew mi jàmm hmm, ak salaam donc bu ko defee ñun ñëpp ñu daal di am jàmm. donc ñu def live bu ndaw rek pour euh, waxtaan ak yéen gis ngeen lu jotoon a am tey si ngoon foofu ca permanence bu fa hmm, la ca Mermoz euh, yàlla def nag euh, ñu nekkoon foofu kenn expliqué wu ñu lu jot a xew ñun ñoo fa nekkoon gis lu fa am commencement ba fin donc du doon mbir yoo xam ne xëy na dañ koy ñaawlu parce que du lii lañ doon xaar du lii lañ doon xaar lañ doon xaar comme ça ngeen xam ne Euh, partie président Macky Sall bi mérité na lu ëpp lii parti bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar euh, mérité wuñu li parce que li jot a am tey ca parti euh, permanence bu APR dafa ñaaw bu doon waa Benno Bokk Yaakaar ñooy xëccoo muy waa AFP waa PS wala yeneen parti yi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp ñoo ne président Macky Sall la ñuy déglu bu doon ñooñu ñoo ñëwoon di xuloo sax à la rigueur mais ñii fa doon xeex ba di fa def lu ñu naan pompe à gaz ñooñu ñoo woowee seen bopp ay apériste c'est vrai ay apériste ñu ngi fa woon mais dama gis nekk dafa am ñoo xam ne dañ ñëwoon euh, dañ ñëwoon pour saltel parce que man maa ngi fa woon kenn du ñu nettali apériste dëgg du jël pompe gaz di ko pompe ay camarades de partem déedéet ay veyu lañ fa andi ay nit yoo xam ne dañ ñëw pour saltel ay nit yoo xam ne gëmuñu parti bi ay nit yoo xam ne comme ni ñu naan nervi waaw ay nervi lañ fa andi bu dee ba ngeen dégg-dégg mu doon nag acte bu ñaaw acte bu benn sénégalais bu bëgg Sénégal di rafetlu parce que président Macky Sall waru leen gën a gore président Macky Sall waru leen gën a bëgg Sénégal donc bu defaree tey alliance pour la république moom ak ay naataangoom ñu créé parti bi depuis des années nguur nu mu neexee macha allah ñu bëri toogoon tey ne euh, président Macky Sall dafa war a mën a def beneen mandat 2024 jëm 2029 ah moom nag kàddoom jiitu woon ko mu ne woon bu defoon mandat am douze ba ak deux mille dix neuf euh, day daal di jox lengay keneen moo tax sax mu woote woon référendum ba mën a wax mandat bi daf koy jëlee sept ans daal di koy indi cinq ans bu ko defee ku toogati ñaari yoon daal di mën a dem bu ko neexoon du ko def parce que 2012 lañ ko fal ba 2019 muy sept ans bu ko neexoon 2019 2000 foog naa 26 la mandat bi naroon jeex moom mu dagg ko indi euh, ko ba mille vingt 2024 pour wan ne rek fu mu teg Sénégal ak lu mu bëgg pour Sénégal mel ëllëg. donc ñu gis ne que gore na wax dëgg fa yàlla ñu doon xaar ni que ay nit xëyoon ci télé yi ci rajo yi ah sàll dafay bëgg euh, def beneen mandat dafa bëgg doomu aadama yi reyante parce que le fekk que président Macky Sall bokk 2024 loolu mooy na Sénégal tàq ay nit di ko jaxase kilifa diine yi kilifa aada yi jaxase koog sénégalais yi jaxase koog diaspora yi président Macky sàll musul toog ci télé bi ne kàddoom yi mu waxoon dafay dëñ mosul toog si rajo bi ne kàddu ñu waxoon dafay dëñ yan kàddu mooy ne woon ñaari mandat laay def bu ko neexee suñu borom daal di dem donc encore une fois jam na ñépp keroog parce que man en personne ku ma ne woon président Macky Sall du présenté wu 2024 du ma ko gëm ak sama yeneen i junni morom mais day wane nag rek président Macky Sall gor la garmi la euh, tënk na kàddoom euh, day respecté kàddoom ba nii tey mën nañ ne président Macky Sall référence la ci Sénégal rawatina nag ci Afrique ak nguur lu mu neexee bu ko neexoon mu forcé parce que mën nañ ne moo yore nguur bu ko neexoon mu forcé parce que askan wi bëgg nañ ko mais dafa xam ne peut-être bu toogaatee 2024 ay coow la nar a andi lépp lu nar a andi coow ba ay baqandi si faat moom loolu nguur jaralul ko ko parce que xam na ni ëllëg si biir dafay dem. donc kooku bu toogee tey ba ne ñu ngi bëgg tànn ah beneen nit bu ko war a mën a remplacer incha allah rabi 2024. Euh, yaakaaroon naa ni li am tey ca permanence du image bu rafet du image buy wane ne que président Macky Sall lii la woote te pourtant yàggul président Macky Sall foofu ca Paris euh, gis ngeen discours am lu mu wax il faut être ah rester solide it il faut être solidaire on va vers la victoire en 2024 ñun ñëpp ba ñu déggoo kàddu yooyu dañu ah alhamdulilah président day poser candidature am 2024 ndeke déedéet moom dafa ne nañu ànd ñu bokk ndey bokk baay ñu gën a dëgërloo sunu jëmuwaay incha allah rabi bu ko defee dinañu am ndam gis ngeen ko tey lu jotoon am ca permanence euh, gisoon nañ fa euh, monsieur Amadou Ba euh, premier ministre gis fa Mbaye Ndiaye monsieur le Mbaye Ndiaye ak jur Sarr gis nañ fa ministres yi bëri ah directrice kii comment dirais-je Maymouna Xuma gis nañ fa maire Ndeye sali Diop gis nañ fa yeneen DG ainsi de suite ak des euh, sénégalais yu ñëwoon pour déglu lu xewoon parce que man mii xaw moon lu xew donc fekkee moom ma si boole woon donc de toute façon gis ngeen mbir mi fu mu mujjee neexul euh, ba ñuy dugg si nag yéen ñëpp gis ngeen vidéo yi wax na boppam ba ñuy dugg si jëkk naa jël en direct Amadou Ba ba mu ñëwee ci kaw la nekk premier si salle bi moom ak ñoom jur saar ñoom Mbaye Ndiaye euh, ay ay député ainsi de suite ñu toog tënk lu ñuy tënk xaw ma lu ñu fa tënk parce que ñun nekkuñu fa woon ñoom ñoo fa nekkoon mais askan wi ñu ngi woon ci cour bi toog di leen xaar ndax Amadou Ba di wàcc ba si freeru président Macky Sall Alioune sàll mu ngi fa woon ñoom ñoo wàccandoo ba ñuy wàcc bu ngeen xoolee sama laay Facebook wane naa ko direct la woon dara amul luñ ci kuppati Diouf Sarr moo njëkk ñëw ak yeneen gars yi ñëpp nice Amadou Ba tamit ba muy dugg affaire yi riir macha allah gars yi tàcc ko. lépp di nice ñu ñëw ñu toog bi ñu toogee ñu waroon xaar prise de parole yi si noonu lañ jékki-jékki gis ay nit yoo xam ne mën naa ni ay ponkal lañu bu ngeen xoolee ñu ngi si vidéo bi parce que en direct la woon dara na bu si euh, du ñu ay militant déedéet parce que militant yi ñu ngi toogoon si banc yi ñu ngi rangé wu teef nii seen loxo di xaar discours Diouf Sarr ak discours mbay Ndiaye ak discours Amadou Ba ñu xam lan la ñu ñëwoon pour wax ñu déglu mais dañoo jékki-jékki gis ay ponkalu nit jóge fële ñëw taxaw si podium bi commencé bi yuuxu naan Diouf Sarr Diouf Sarr Diouf Sarr moo fi ne Diouf Sarr moo fi ne foofu la problème bi commencé te it damay expliqué nii bu ngeen demee ngeen seetaan live bi loolu ngeen fay gis parce que c'était en direct donc yaakaar naa ni coow li bu ñëwee dañuy ne si waa kër Diouf saar yi ñoo andi coow li waaw parce que man ku xam moom comme ñu koy waxee rien que vérité li ma constaté laa gis man en personne bu ngeen déggee sama baat maa ngi leen di naan def leen ndànk bàyyi leen lii ainsi de suite donc gisuñu benn militant boo xam ne Amadou Ba la àndal wala beneen militant bi nga xam ne beneen nit la àndal foofu jóg di sandi wala leneen leneen mais gis nañu ay nitu Diouf Sarr yoo xam ne ñëw nañu ñu nekk presque six personnes ñu ngi si live bi Euh, ki sol silettement bu verte bi ak yeneen gars yi ñu ngi si live yi te vidéo yëpp mën nañu ko coupati benn par benn parce que werante xuuxaante ki tubéy ñoom en personne ñoo ñëw taxaw si podium bi te tey ñoom Amadou Ba Diouf Sarr toogu ñëw si podium bi fi ñu toogoon boo taxee si podium bi da ngay sut ba ñu ñëwee naan Diouf Sarr rek moo fi nekk yow rek la topp ainsi de suite fii toppuñu kenn président Macky Sall la ñuy topp fii toppuñu kenn kenn kenn kenn kenn président Macky Sall la ñuy topp moom la ñuy déglu mu ne kii laay jiital ëllëg ñu daal di ànd topp si ginnaaw ki mu jiital bu neexee suñu borom keneen ku def leneen wor nga waaw ñëpp loolu lañ d'accord ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp loolu lañ d'accord parce que président tey ki mu tànn pour ëllëg kooku nar a jiite na mel ni que président moo continuer ba léegi. donc heure bi waroon nañu mën a wu bokk ndey bokk baay ñu bañ a ñëw fii naan ay Diouf Sarr fi nekk ak Mamadou Ndiaye fi nekk fii kenn nekk fii président Macky Sall fi nekk donc loolu laa bëggoon pour muy clair coow li bu ñëwee bu dee ba ngeen dégg dëgg waa nitu Diouf Sarr yi ñoo ko andi parce que vidéo yi ñu ngi fi en direct la woon lu nekk en direct même Diouf saar bu toogee di ko seetaan dina gis ne que ay éléments am ñoo andi coow li donc mënoon na ñàkk nag xamuñu lu ñu monté la xamuñu lu ñu waxtaane la je sais pas loolu leeruma mais coow li bu amee waa Diouf Sarr yi ñoo andi coow li nañ tey waxtaan wax dëgg ca la parce que encore une fois defuñu parti bi pour ay nit recruter ay gros bras ñuy ñëw foofu di jéem sabote saboter tolluñu foofu nekkuñu si loolu encore une fois gis naa tamit ñu ngi coppati sama benn vidéo bu une minute mooy fi may ne Amadou Ba nekkul candidat samay wax dafay leer parce que dañoo gis Diouf Sarr ba mu jëlee parole jël na parole ba mu jeexal amul ku ko yuuxu amul ku ko ne doo wax parce que dem leen ngeen seetaani live bi en direct la woon ba jur Sarr waxee nag dafa jékki-jékki ne dakaar ñaari candidat la am mooy moom Diouf Sarr ak Amadou baax ma gis ama du baax bu ngeen seetaanee vidéo yi naan nii si loolu laa sukkandiku ne kon Amadou baax nekkul candidat parce que jur Sarr mu ngi koy naan euh, ñaari candidat moo am Dakar muy man Diouf Sarr ak Amadou Ba Amadou Ba en personne di yëkkati loxo bi di ko ne nii ndeke après si laa yëg ay nit ne ma Amadou Ba boo gisee mu ne nii c'est parce que du Diouf saar moo ko war a mën a ne candidat la bu dee dégg-dëgg Diouf mënoon na lijjanti candidature boppam mais pas mu dugg si candidature Amadou Ba Amadou Ba am na fulla ak fayda bu bëggee nekk candidat mën na waxal boppam nekk man candidat la kenn ëpp ko fulla mais moom ba léegi. amul presse wala télé wala rajo bu Amadou Ba toogal ne man candidat la xëy na bu dee wax na ko mën na am wax ko président léegi nag dañuy déglu président ëllëg bu ñëwee mu mën ñu wax est-ce que Amadou Ba lay fal wala Mamadou Ndiaye lay fal wala da lay fal ñu daal di sukkandiku si kooku parce que Amadou Ba bu ko neexoon suba suba woote congrès mu ne moom candidat la bu ko defee affaire yi day lëj mais comme dafa toog ruqam woote nañu réunion xaw ma réunion bi lan la woon ak lu ko wundoon ñëw na taxaw na Diouf Sarr bañ ko joxee parole mënoon na wax sénégalais lu waraloon jotaay bii tey te it waroon na mën a ñaawlu nitam yooyu taxawoon yuuxu ba pompe à gaz jolli ba ñoom mbay ñaay ay paar ay kenn xamul ñu bëri daal di fay xaw a xëm man en personne pompe à bi jàppoon na ma ba léegi fi may wax ni sama loxo yi pompe bi xaw nu mu demee noonu ba léegi day tàng jër ci biir donc lu waroon mën a ñàkk la lu waroon mën a ñàkk la du lu rafet te encore une fois bu ñu kenn wax loo tamit bu ñu kenn waxloo ñun ginaaru kenn nenuñu ñun parti bi xam nañu ñan ñoo fi liggéey ak ñan ñoo fi dul liggéey ñan ñoo fi dimbali président ak ñan ñoo fi dul dimbali président parce que ay élection romb na fi gis nañu ku ne noo mënee waaw ku jàkkaarlook seetu bi war nga mën a xam sa bopp te waxuñu la ko qu'on se la vérité parce que nit yoo xam ne mënuñu gagner seen quartier nit yooyu nan lañu mën a gagner euh, euh, présidentielle il faut tamit ñu ñu ñu ñu ñu ñu régler quoi parce que ñun ñi kenn gënuñu sax bëgg nekk président président de la république nekk ko dafa neex mais pour nga nekk ko foog nga incarner d'abord que sénégalais yi xam nañ la si nga nekk ab liggéeykat sénégalais yi xam nañ la si nga nekk ab ñefekat sénégalais xam nañ la si nga nekk koo xam ne ku yaru nga ku teey nga ku topp ginnaaw président de la république nga ñun loolu la sénégalais loolu la ñuy xaar sénégalais dañuy xaar président Macky Sall andil leen koo xam ne ku am jom la ku am fulla la ku am fayda la ku mën a yóbbu Sénégal gi kanam la ñun loolu la ñuy xaar ñun xaaruñu koo xam ne dafay jëlewaat Sénégal gii nga xam ne tarkala mu ngi émerger di ko andiwaat ci Sénégal buy courant di coupé ji di ko andiwaat si Sénégal boo xam ne njàngu xale yi day yàqu di ko andi si Sénégal boo xam ne tout le temps ay grève di andi Sénégal boo xam ne da ngay dugg si boutique ñu ne la ceeb amul wala dawlin amul wala wala wala wala wala gaz amul bëgguñu Sénégal googu Sénégal gi président Macky Sall daf ko jële si lëndëm andi ko si leer parce que gis nañu ñun ñëpp en 2011 2010 lu ñu doon am si jafe-jafe si courant xuy xamat koo xamat foo tourné courant mu ngi coupé président Macky Sall ñëw résoudre ñu problème boobu loolu rek doyoon na bilan président ma Sall ku soxorul ku ne. waroon nga ne bilan président Macky Sall doyoon na rek si ba mu ñëwee résoudre ñu problème électricité bi parce que dañu doon jàkkaarloo ak jafe-jafe mbiru courant déetawaay ñu ne bilan président Macky Sall waroon na rek mën a doy si jafe-jafe yi ñoon am ci mbënn bi parce que dañ doon toog ay 2007 2008 bu tawoon. munoo dugg ci même bu dee da nga yor camion croisement Cambérène mënoo foon dem pompier RTS da doon buuj président Macky Sall du ñëw def lu bëri ci mbirum inondation dugal ci ay milliards tax tey bu tawee dewuñu de du taa mais du taa comme nu mu doon taawee avant yàlla dëgg la bëgg président Macky Sall ñëw def defaral ñu ay tëli yoo xam ne embouteillage yu ñu doon dund dund dund loolu muy ci banlieue bi muy ba ba ci doy dem ci àll bi ci région yi donc ñun dañoo bëgg ëllëg ku président Macky Sall di mën a tànn na tànn koo xam ne am na gis-gis bi mooy la même vision bu président Macky Sall nekkee woon mooy yóbbu Sénégal émerger ñu raw sunu yenn dëkk-dëkkaan yi nekk ci sous-région bi ñu loolu la ñuy xaar mais fale pas tey ñu ne dafa am réunion ñu gis ay nit di andi seen ay gros gaillard déetawaay bay mën a pompe à gaz te ñu fa nekkoon yëpp gis nañu pompe à gaz lañ fa dóor ba am ñuy daanu ay jigéen ay maire ay pas loolu dafa ruslu si nay yéen bëgg ngeen remplacer président Macky Sall ku tëdd nag di saw sa bopp ngay tooyal je pense bien buñ naxante fii koo wéet xam na kuy baayam fii ku wéet xam na ku la mën donc yaakaaroon naa ni waroon na nañu mën a joxante loxo xool ku la sut nga ne ko njool mi maa ngi sa ginnaaw ñu daal di ànd ci ginnaaw président Macky Sall pour liggéey Sénégal mais di ubbi ay clan ay damaa bëgg jiite réew mi te sa quartier mënoo ko gañe mënoo mobiliser nit Dakar fan yële tàq na ne jëppit kenn gisuleen ci presse bi kenn gisu ci télé yi kenn waxut ngeen abandonné président tey ngeen di bëgg di ñëw di xëccoo naan président laa bëgg nekk président xanaa kon man ma ñëw sax ne président laa bëgg nekk parce que ba xeex bi tàngee ñun ngeen doon dégg ñuy génn di wax di kaas nit ki nag duñ la may lépp nga jël lépp encore une fois vidéo boobu ngeen di tourner si réseaux sociaux yi que Amadou Ba euh, nekkul candidat c'est vrai parce que bu ngeen xoolee vidéo bi dam leen ngeen xoolaat Diouf Sarr en personne euh, moo sunu candidat ñaar lay doon ci Dakar muy man ak Amadou Ba léegi Amadou Ba donc mu ngi noonu te pour dire vrai nag bu dee soxorunu dañuy bàyyi choix bi président Macky Sall jël ko mais qualité yépp lu ñuy wër ci président Macky Sall mu ngi ci Amadou Ba yàlla dëgg la bëgg yàlla sunu borom dëgg la bëgg dañuy bàyyi président Macky Sall def choix mais bu ñuy wër choix pour nii kii war na mën a nekk président de la république dama ne qualité lu président Macky le euh, président de la république di wër pour nga nekk président et pour nga mën a nekk président ni nga war a mel qualité yooyu yëpp mu ngi ci Amadou baax bu dee ci yar qualité yooyu ñu ngi ci Amadou baax bu dee ci jàng qualité yooyu mu ngi ci Amadou baax bu dee pour bëgg Sénégal qualité yooyu mu ngi ci Amadou baax olof laa leen di dàq Lamine président nag moo xam ku muy bu choisir Amadou Ba ñu ànd ak moom bu choisir keneen nit ñu ànd ak moom mais dama ne qualité pour être président lu ñuy wër ci qualité yépp ci président mu ci Amadou Ba respecté na doomu aadama yi jiite na fi primature actuellement nekkoon na fi ministre des affaires étrangères nekk na fi ministre euh, euh, des finances nekkoon na directeur domaine xam suuf xam lépp kooku jël na euh, jël na jël na maanaam lépp lu ñuy wax qualité ci président mu ci moom ñu bañ di naxante ñu bañ di naxante parce que tamit pour dire vrai bu ngeen jàppee mbir mi nii di soxarante di añaanante di bañ yéene seen morom ba mujj bi ngeen perte après yéenay perte après yaay perte nañu wante dëgg dama ni bu ngeen bañee bokk ndey ak bàyyi comme ni ko président waxee woon bu ngeen bañee bokk ndey ak baay comme nu ko président waxee woon ngeen bañ suudewu comme ni ko président waxee woon jour ji bu jotee ngeen xoole ndax lan seen añaanante bi seen soxorante bi seen bañ a jàppalante bi ngeen perte pouvoir bi du kalaasu Kaliphone bi ñooy sonn du militants yi ngeen gisoon tey ca permanence la ñooy sonn militants yi mën nañu jaaye ndox bu sedd mën nañu bindaanu yi mën nañu béyi gerte mais yéen mënu leen loolu te nag ju doy na borom xel bu leen ñaan yàlla perte pouvoir bi sénégalais yi ñaanal luñ leen yàlla it ngeen perte pouvoir bi mais kon bàyyi leen lépp loo xamante woon ay xuloo laak ay ñiikaak ay ŋaakaak ngeen bokk ndey te bokk bàyyi loolu la sénégalais soxla loolu la waa mouvance présidentielle soxla loolu la waa Benno Bokk Yaakaar soxla loolu la président Macky Sall soxla ngeen bokk ndey bokk bàyyi continuer liggéey pour un Sénégal meilleur pétrole bi macha allah bientôt ñu commencé naan litre ñaata gaz bi it même chose ñu commencé jaay. pooru ndaayaan ba nga xam ne président Macky Sall commencé woon na ko bu ko defee ak yeneen projet yi nga xam ne deux mille vingt six lay jeexi ngeen continuer di ko liggéey pour un Sénégal meilleur. koo xam ne xam na ni bu demee du gagné na toog mu xaar buñ ko falee mu jël post ministériel mu bañ a andi embouteillage fii xam nañu ñam ñoo xam ne bu ñu demee dinañu gagné. loolu xam nañ ko mais munoo toog sa ruq ñu jékki-jékki ñu naan dañuy woote permanence rek nga ne xaar mu wuti ji bës non bu kenn nax kenn et puis nag di doon euh, matt ëf baaxul affiché cowboy xaw ma lan affiché indo c'est pas bien bu ngeen nekkee seen nit di kaf di foo di ree di siñante boobu yéen a ngi monté seen ay élément pour nañ ñëw ñu tilimal loolu moo fi war a jeex loolu fi war a jeex réew mi dañ koy jox ki nga xam ne àttan na réew mi réew mi dañ koy jox koo xam ne Sénégal diaspora bi même ba ci opposition bi sax bañuñu ko encore une fois si loolu la ñuy xaar xam naa ni président dina gis vidéo bi te dina ko gis parce que am na ay renseignements généraux soxnaam njabootam ñëpp ñu gis te dinañ ko ko yónnee jot na si donc muy acte yoo xam ne ñëpp dañ koy ñaawlu acte yoo xamante ni euh, dañuy ñëw di pompe à gaz ay militants apéristes ak yoo xam ne premier ministre day toog ay nit jóge fële eh, di di ko yuuxu dagg micro bi Amadou Ba dafa dem bay jël parole eh, waa Diouf Sarr yi ñoo yàq micro bi mu ngi foofu vidéo yi ñu ngi fi et loolu c'est anormal du lu ñuy rafetlu bu doon waa nitu Amadou Ba yi ñoo def loolu Diouf Sarr yi dañuy dal si kaw nitu Amadou Ba yi parce que ñun kenn moomuñu man Amadou Ba moomu ma Mamadou Ndiaye moomu ma keneen moomu ma dëgg rien que la mais bu ñu gisee waa nitu Diouf Sarr yi ñëw di saltel te moo sax vingt personnes c'est anormal c'est anormal lu ñuy ñaawlu la ba ci kanamu yàlla parce que boo xoolee ñi saltel motuñu vingt ñi saltel motuñu vingt parce que ca géew ba ñi fa toogoon yépp gisuma ko fa saltel ñii ñëw ci podium bi boo leen calculer motuñu dix personnes ñooñu ñoo fa néew naan amam lébu la noog Dakar ñoo ko moom ak Diouf Sarr ak patati parta affaire d' éducation de Dakar wala Thiès wala leneen élection yi du élection Dakar élection yi du élection Dakar du élection Yoff élection bi Sénégal ba si diaspora bi donc xool leen est-ce que seen Diouf Sarr bi am nay nit Fuuta xool est-ce que am na nit Tamba xool est-ce que am nay nit Touba xool est-ce que am nay nit ci diaspora bi c'est vrai am na nit Yoof te nu Yoof fa sax gis ngeen élection yi passé booy bu ndaw a ñëw foofu jëlee ko fa donc bu leen ñu wax loo tamit quoi jox leen ñu cër quoi respecté leen ñu tamit ko ah respecté leen ñu Diouf Sarr lu mu def tey foofu moom ak ay nitam ñaaw na lool tilimal nañu deru parti bi euh, rafetlu woon ko encore une fois dañu wante dëgg quoi ah donc message bi laa doon jàllale ko Diouf Sarr xëy na sax moo def exprès ne ñaari candidat am moom la ak Amadou Ba Amadou Ba tamit am fulla ak faydam ne ko man doo wax waxloo sama candidature waaw yow Diouf Sarr waxal sa candidature devant tout le monde man bu ma jëlee micro bi dinaa xam lu may wax du yow yaa ma war a waxloo nii ak naa coow yëpp loolu sax ak wanti moo tax vidéo boobu man it ma def si erreur bu ngeen ko gisee maa ngi daan Amadou de nee na nekkul candidat parce que maa ngi sukkandiku si Amadou Ba bi muy naan nii loxo bi ngeen xoolee vidéo bi Diouf saar daf ko ne ñaari candidat Dakar muy man ak Amadou Ba Amadou Ba ne ko nii man it ma sukkandiku si nii bi ma ne Amadou Ba nekkul candidat mais ñëpp xam nañ ne Amadou Ba profil bu baax la pour mu jiite ñu man bañu ma ko bañu ma pour mu nekk président ëllëg Sénégal te nu ma ko mës bañ it parce que lu ñuy wut ci président Macky Sall mu ngi ci Amadou Ba lu ñuy wut si ku nar a jiite réew mi ëllëg mu ngi ci Amadou Ba am na qualité bi am na xam-xam bi am na lëppam bi donc daal encore une fois nañ leen yéenante jàmm ñu daal di bëggante bu ko defee incha allah ñu bàyyi choix bi président Macky Sall daal di koy def bu choisir Amadou Ba xayran bu ko choisirul yaa xayti ñu xool kan la choisir koo xam ne it ku ñuy bëgg la te président Macky Sall yaakaar naa du juum ba war ñu mën a andil koo xam ne askan wi bëgguñu ko donc wasalaam lii moo xewoon ca permanence ba. encore une fois waa nitu Diouf Sarr yi bu ngeen toogee tey xam ne ne yàq ngeen tilimal ngeen euh, rafetul li jot am ñun nag on était là-bas kenn expliqué wuñu donc bien na nañu euh, pour wax li fa jotoon a am bu ñu gisoon waa Amadou Ba ay tilimal te ñu ngi foo na feesoon nañ fa del mais gisuñu ñu tilimal ñi fa tilimal yépp ba waa nitu Diouf Sarr yi bu ngeen xoolee vidéo yi ñoo jël garde corps Amadou Ba di pousse parce que ñu ngi nekk ay ponkal te ay agent de sécurité lañu mën na ne sax ay police lañu xëccoo ñu ak yéen man en personne maa doon mujj wax sëñ bi bàyyi leen yem leen ba mujj bi sax si lañ ma déggal donc il faut ngeen arrêté bu ngeen amee doole ba ngeen di jaay arrêté leen ñu leen di recruter di leen andi si mel ni 10 000 sax du ngeen ko si am bu ngeen fa defoon nag su dul noonu it buñ leen jàppoon ne leen rap ngeen yaakaar moo mel ni miti lañ leen wax kii dooroon pompe à gaz bi buñ ko gisoon ci caméra yi buñ ko newoon rap du sa leader moo la fa mën a génne ñi fa doon xeex bu ñu fa jamoon nit wala ñu dóor fa nit ñu jàpp ne kii la caméra yi li la wone bul yaakaar ne sa leader boobu mun na la muccal ci kaso bi dëkk bi dëkk dëkk droit la dëkk de jàmm ak salaam la fu waaye mën a féete féete boo ñëwee ba permanence nga wone naka kii laa àndal tàccul defal lu la neex waaye di poñe di buux ak di jël ay xeer di sànni affaire golo yooyu loolu moom dafa war a ko quoi donc jaajëfal naa ñëpp sant leen gërëm leen beneen live incha allahu rabbi vive la Sénégal ñun ñëpp ñu ngi déglu son excellence alaaji président Macky Sall war na ñibbi si réew mi yaakaar naa ni suba wala gannaaw suba ah, bu guddee ba guddi gannaaw suba incha allah bu ko defee incha allah rabbi ñu xam lan la décidé ñu daal di ànd ak kooku daal di liggéey pour un Sénégal meilleur nekk lañ si jàmm la famille jàmm si ñëpp allez au revoir